dalee nag jàmm ci seen rubrique culture tey nag dinañ wax ci liid di musique bu ñu jagleel wàllum film artiste compositeur bi di Baba mal dalalon nan ko démb fele ci institut français bu Dakar ngir waxtane li di musique de film ginnaaw bu mu jëlee ay raaya yu bari ci film bi nga moy Black Panther ak way bi nga xamanteni ni way na ko ci mu ngi ñuy dikkaatal ci lan moy musique de film. mais pour wax rek ni musique de film nak dafa wuute ngay def cassette wala ngay def CD bu simple parce que lepp lo xam li doomu adama ay yeg yeg yu muy am la par exemple ci personnage bi muy joué yow lañuy wax nga génne ko te kenn du la gis sa baat rek la ñuy dégg wala si guitare la ñuy dégg nga war a génne loolu ba nga xam ne bi musique bi day collé ci image bu ñu bi ñuy dégg mu gën ko jox sens donc loolu beneen expérience la boo xam ne bi wax dëgg yàlla bi moo ko commencé léegi gis naa ci lu ma neex te bëgg naa ko gën a continuer mi ngi woy ba tey dañoo xamal naka la dooree ci bile pàcc nga xam ne dañ koo jagleel wàllu musique ci biir cinéma commencé naa ci ci euh, ak Peter Gabriel ci euh, album Passion mais surtout Sembène Ousmane mi ñëwoon ci man nee ma gelwaar dama bëgg nga woyal ma li nekk si biir nga def musique ma musique mais film bi Black Hawk Down la chute du faucon noir histoire entre somaliens et américains pour man représenter partie africaine à chaque fois que ñuy une image africain yi fekk Black Panther nekk na film bu nga xamante ni la ay yu musique de film naka def ba producteur. Black Panther indi Sénégal di remercier toujours. Nour le compositeur Ludwig Göransson parce que moom moo ñëw euh, sur mon chemin proposé moom ma ànd ak moom moo récupéré award bi euh, muy Oscar bi muy Grammy award bi

siriga siride matororo sare ñiwawarama sare yumarokuma wajoma an bamarokuma wajoma sakoma dokuma wajota koma sirigan siride matoro ñëw seen wàllum xew-xew culturel juróomeelu édition bu Dakar Gorée Jazz Festival te ñu ko percussionniste bi di Doudou Ndiaye kumba Rose dina am ki fukki fan ak ñaar japp fukki fan ak ñett ci avril fële le jardin yu hôtel de ville bu Dakar Dakar Gorée Jazz Festival nek na ben événement bu nga xamante duggal nañ ko ci biir agenda culturel et touristique bu Sénégal tayit euh, hôtel de ville bu Dakar mo kay organiser ci ko compagnie aérienne Royal Air Maroc bu ñu sukkandiko ci ben bataxal beneen xew. ñeel na artiste comédien yu troupe atelier de théâtre bu Tambacounda doon nañ delloo njukkal xaatimkatu malien bi di Seydou Badian te mu génnoon àdduna ay weer ci ginnaaw ci bile delloo njukkal sax daal dina ñu joué waat ay pàcc yu bëri ci téere boobu mu bindoo ñu tuddee ko sous l'orage naka noonu itam sukkandiku nañ ci proxndol boobu ngir euh, expliquer élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci classe de quatrième naka la bile téere tëddee ndax bokk na si seen i ay programme ñu ñëw si 2019 dina amaan ni kii fële ca CICES ba 9h jotee jàpp 19h mbokk yi li nag mooy ndar képp seen rubrique culturelle bu alxamis di leen jox di daje beneen alxamis laata loola di leen ñaanal kendal ak jàmm.